mais xam nga comme que liggéeyoo nga bëgg a def teraanga ko toll nii day daal di metti yow del bëgg rek yow loo bëgg loolu laa di def sa à dire doo rek la ma deful bis buy gën damaa tay la sama takkaay daf may rey bul mos a nangu jaak sa jabar ngeen ñëw fi di déstabiliser kër gi lan la daa am la sama ginnaaw kii il faut ma defal defanteeg moom dafa jot maman li yaa moom ah dama duñ toll nii naa am liggéey rek mënal sama bopp wuy sama ndey na bu jàmm yàqu la